Macky Sall moom am na jamono ji kat lu ko doy sëkk ba tax na situation bi nga xam ne kat ci la dëkk bi dugg maanaam ci guuta ginnaaw événement yi nga xam ne kat kenn du ko fàtte ci weerum juin bii loolee daal war na nekk rek nu nga xam ne war na xel yi ci moom ndax bi nga xam ne daal moom la dund laal wàllum koom ci wàllum politique daanaka koom gi moom dafa gis na kat gis na ne yéexaay loolu waaye tamit gis nañ ne li nga xam ne daal moom la war a jël en compte mooy plan Sénégal émergent la yaakaar kon ñu xam ne dina am njeexital ku bon waaye seet nga mini Adji Sarr Ousmane Sonko loolee gis na kat jafe-jafe la waaye bu fekkee ne mën na cee gindi tontu gis nañ ne lii nga xam ne kat daanaka askan ñu ngi koy ŋawti ŋawte ñaari at a ngi nii ginnaaw réponse boo xam ne daal waruñ koo mën a indi wala sax ñu ngi koy yaakaar ci tolluwaay bi nga xam ne kat jafe-jafe am na ko gis nañ ne njiiti réew jamono ji ci guute nga xam ne ci la dëkk bi dugg war na cee mën a génnee kon nag citoyen ñoom ci yaa weeru jot rek daañu dem tab benn njiiti réew kon mu nekk jamono ju nga xam ne kat dina soxal askan wi lool ndax dina nekk candidat wala déet loole daal mooy laaj bu samp ndax ci code électoral bi ak loi bi nga xam ne moo ñeel ci wàllum parrainage ak structure yi nga xam ne sax wala keneen yi nga xam ne ñoo saytu wàllum élection bi mën koo organiser ci lu leer loolee la askan wi xaar kon nag foog ñu mën a déggoo déggoo ci waxtaan waaye bu ko defee tamit dispositif bi nga xam ne nañ ko ci at mi nga xam ne mooy atum 2019 ba léegi loolee bañ a nax saay kon nag gis nañ ne jafe am na naam waaye tamit foog ñu indi saafara kon bu fekkee ne jeexital bi ñuy xaar am na ci dialogue national bi nga xam ne ñu ngi koy xaar ci ñaar fukki fan ci juróom ci weerum juin gis nañ ne kat njiitu réew mi moom daanaka dina firi ñu bëri kon tamit laaj yu bëree bare sampu fan la leader Pastef Ousmane Sonko di mujjee li nga xam ne mooy élection tab njiitu réew mi ndax dana ko fekkee ndax dana ca bokk loolu nag mu nekk laaj yu bëree bëri lan mooy ëllëgu Karim Meïssa Wade ak xalifa Sall tonte nag kenn yor ko ku dul njiitu réew mi kon yaakaar ne initiative yi nga xam ne kat moo war a tukkee ci ku ne moom nag ñu bare bëri moom lañ ciy xaar kon nag war nañoo yaakaar ne li nga xam ne tol gu bon loole war nañ koo mën a jël tege ne le ndax lépp daal mën a sukkandiku ci waxtaan bu ko defee déggoo mën a am jàmm mën a am ñu am élection 2024 yu wér te wóor kon ñu yaakaar ne buñ ko deful wala ñu exploité jeexital yu baax yi nga xam ne moo nar a tukkee ci dialogue national bi bu yaakaaree ne kat loolee moom bu ñu xoolee ba mu rëcc kat loolee dana gën a metti lool ci ñun